ma gis mooy li ma gis stade Amadou laa xam ci mbooloo gis beneen mbooloo mbooloo yoo li ñu sol dañ ko niroo mu wóor leen dañu jël xaalis askan bi ñu sàcc di ko jëndale ay t yooyu déggoo man la ñun dañuy jënd suñu ay t ñun du ñu leen jëndal ay t man mii amul benn t-shirt bu ma jënd jox ko kenn au contraire je suis nit moo naan Birame Khoudia te candidat je te fais euh, mille affiches yoo xam ne yow ak Sonko ci nekk te sama xaalis demu ci loolu day am cest à au fond on va vers une démocratie on va vers une rupture te du ñii ñooy tere rupture boobu parce que ñii xam nañ leen manière bi ñuy defee la politique ñun xam nañ ko donc mënuñu ñu jaar fen ça problème xastante werante wax loo warul wax fenn et eh, il utilise le mot fenn te xamuñu luy fenn dégg naa ku mel na Bougane Gueye Dany je le cite parce que daf ma cité nommément te waroon na am gàcce pour di ma citer man pour man Ousmane Sonko la waroon di citer quoi mais sa dafa citer Ousmane Sonko ba tey amul benn impact zéro à la base léegi nag mu ne. pourtant am na impact de ndax Sonko des fois daka daan tontu. amul impact. amul impact le fait di ko tontu loolu du impact amul impact li muy wax Ousmane Sonko amul impact. bu amoon impact du wàcc ci gën a ku gën a suufee Ousmane Sonko foofu di wax di tudd sama tur biiram xujja loo. lu waral mu tudd la. en man en mentant parce que d' abord premier mensonge bu mu def. Mhm. un gros mensonge mooy muy wax xale yi est ce que euh, jox nañ leen liggéey dañ leen waxoon ni dañ leen jox liggéey bu mu nax xale yi personne n'a di dañ leen di jox liggéey en sept mois daf ci waroon teg en sept mois dañ leen di jox liggéey. cest à dama lay jox nga lekk may togg nga ni joxoo ma ma lekk waaye waaye bàyyil ba togg gi pare nga xool ndax di nga lekk wala doo lekk. Mhm. c'est aussi simple que ça man lu may wax ci pédagogique mi ngi mel na nga fekk koo xam ni dafa ni doomam yi toog leen xaar leen ma ma jox leen lekk di togg añ duggi di duggi rek nga di ko joxoo leen lekk donc dafa am processus tu peux pas en sept mois régler les problèmes des Sénégalais. te problème sénégalais yi aujourd'hui c'est très profond parce que boo xoolee 1960 ba léegi liggéey ñu liggéey ñu li ñuy liggéey yëpp li ci ëpp dafa jëm seen porche aujourd'hui les générations dañu yeewu pourquoi parce que vous avez votre portable vous regardez ce qui se passe aux États-Unis vous voulez être gouverné comme les États-Unis parce que nit nañ ñu koy nit da xool Inde xam ni Inde bii kat nii la ñuy doxee pourquoi pas nous mais nous ne sommes pas des sauvages parce que yàgg nga ni yëpp. c'est ce qui a amené ces révolutions citoyennes patriotiques et engagées. Mmh. donc dégg naa muy fen ci loolu loolu moom ay fen la mais fen bu gën a rëy mooy mu ni biram ko jëloo man ku ma cité. Mm-hmm. Euh, teg ma fii nga teg Bougane Gueye Dany fii nga xool ñu jël xale bu ndaw mu wax ma wax nga ni xale bi kan mooy wax dëgg ci ñaar yi defe naa suñu degré d'engagement de parole sax bokkul. moom buy wax day leem leem yi man bu ma dee wax damay wax waxu dëgg ñu xam ne ma wax dëgg la donc il dit que Biram Khoudia nee na dafay teral góor jigéen yi dafay kii man loolu dégguma ko woon sax démb bi ma demee ci discours ci ci meeting bi. la mhm. ma benn booy ni ah yow de Bougane Gueye fenal fenal fenalati na la ma ne ko non yëguma ko mu ne man ko lu mu wax mu ne nee na yow yaa ni daal góor jigéen da nga leen di favoriser et cetera. ma ni que dafay fen et puis bàkkaar bu rëy la def parce que on se connaît à saint xam na ni man du ma cautionné góor jigéen boobu xam na ko xam na ni je suis pas d'accord pour góor jigéen xam na ko même bu ñu truqué benn affaire maanaam benn télévision jël benn wax truqué que maa ngi koy renvoyé ci fii même télévision boobu muy Public SN dama leen di tudd waxee ni Biram Khoudialo a quitté le plateau dugal sa léegi boo duggee sa portable nga gis nga bind Biram Khoudialo a quitté le plateau da ngay gis ni publicité SSN ko bi seetaanal début à la fin. nga gis ma ma toog ci plateau. sa veut dire faux titre la nga xool Aliou Sow moo quitté le plateau keroog Sen TV wax naa ko Aliou Sow waxul dara parce que xam ne ma ko wax dëgg la ma ne ko télévision bu nga xam ni danaan Biram Khoudialo a quitté le plateau te ñu xoolee yow Aliou yow yaa quitté woon bi. kooku di télévision bu sérieux kooku sérieux wul kooku mënul wax leader politique di jël wax jooju di ci basé truqué ko et pourtant j'ai dit en tant ko Birame Khoudia Lo député si je suis élu mm déposé n'est-ce pas projet de loi criminalisant donc yow jël nga engagement boobu je l'ai dit du fii je l'ai dit foofu ñu jël la leen neex dagg fi ma wax wala xat naa bani adam c'est-à-dire yàlla dafa fonk doomu aadama. Mhm, effectivement ñu ni yàlla dafa fonk man maa wax góor jigéen et tout ça bon yooyu day am booy bi génne nañ ko ndeysaan Ameth Ndoye noonu la ma doon tuumaal tuumaale dañu bàyyi di tuumaal gor man damay julli di woor te du ma mooy comme ñoom faut fet très attention xam nañ leen biram ko jëloo guerrier la ñetti jabar trois femmes su ma bëggee damay takk man du dem di moy il faut que les choses soient parce que boo moyee am na yoo xam ni boo ci bëgg a àgg doo fa àgg donc c'est extrêmement important ku mel noonu mun loo ko fenal tu pas et il a menti pour diir que man damay encourager góor jigéen mu mel na boo ma tooñee ma dóor la ñu dagg boo ma tooñee daal di def ma dóor la bu ko defee ku ko dégg ni yow yaa tooñ da nga da ko ma dóor la fekk boo ma tooñee y a une conditionnalité on enlève la conditionnalité loolu jeu de mots la ñun jàngalekat lañ on xam nañ ko loolu du dara dagg lii pour changer parce que le mot ne vit que dans la France mën nga dagg dugal ci mot mu signifier leneen loolu c'est élémentaire et c'est ce que les gens font bu ko defee pour bëgg tuumaal ñu mel na ñun moom je le connais bien Dany Dany je te connais bien ndax Dany Dany bi ñu daan dem cinéma Dany danga daan ragal nekk ci ginnaaw <laughs> Dany ñun ñu dugg. lu mu daan ragal. parce que dañ daan jiital. gérés yi ñoo daan jiitu bu ñu ñëwee dañuy dugg par force te duñu fay dañuy brûler bunt cinéma dugg mais moom mosul brûler mos na brûler cinéma yow nga nekk xale nekk ragal nekk ci ginnaaw ah nekk un poltron on te connaît à Saint-Louis on connaît ta maman on connaît tes géej DRM Guèye kay xam nañ ko dëkkoon Mauritanie xam nga ñun lañ dul wax Alima Diakhaté ñun xam nañ ko sànq ba fële ci gox mbaaj on connaît les ñoom ñoo xamul mais moi je connais ces tous ces gens là parce que dama juddoo ndar nekk doomu ndar nekkuma dooli ndar jógewuma Mauritanie jógewuma feneen ndar laa judd ndar Saint-Louis. mais moom it doomi ndar la de. ah non du doomi ndar attention dafa am doomi ndar ak dooli ndar li ma wax xam na que je veux pas y euh, prononcer bugguma si sax avancer parce que bu ma ko waxee loolu war na tikke attention. mais pourquoi nga ne du doomu. war na tikke non non foofu la dëkk. j'ai lu bari mu def ko foofu. j'ai cité ses war na tikke. faraayam léegi loolu mu wax dara du ci dëgg mais dafa am lu tax mu wax ka et il y a sept raisons que je vais lu mhm. nga xam ni moom moo tax wax ko peut-être parce que Bougane boo gisee muy tudd biram ko jëloo dafa bëgg jël revanche ci man. gis nga bi mu fi nekkee di lapp-lappi naan Ousmane Sonko wéy ku mu dem na la jox xaalis man maa ko ne hey mu ne ah ma ne ko yow am nga xaalis mu ne ah ma ne ko wan ma sa modèle économique. quel est ton modèle économique. c'est-à-dire ba yan yoon nga jaar pour am xaalis bi en un temps record jox ñu modèle économique bi ñu modéliser ko universaliser ko xale yi dem liggéey ci et il avance c'est comme ça les grands entrepreneurs dañuy am modèle économique bu nga xam ni véritablement dañ koy teg boo demee les grands salons de l'entreprise dañuy indi seen modèle économique teg ñeneen entrepreneurs yi di ci inspiré wu moom ana modèle économique amul modèle économique et jusqu'à présent il n'a pas répondu à cette question. ça veut dire alalam jaar mu jaar kon dafa mel ni baaxul. léegi loolu moom non waxuma la sax fi mu jaar baaxul mais amul modèle économique c'est-à-dire mën na toog du fay Alima Ndione Alima Ndione du fay Mindaanam amul modèle économique. d'accord soo produit c'est basé sur le chantage ay euh, nu mu tuddati euh, comment ça s'appelle euh, ay wax wax comment ça s'appelle encore. di wax euh, nit ñi di déglu di commérage voilà ay ah, commérage son produit c'est des commérages mhm. li ci ëpp mhm. produit boobu lay joxe et le produit là ne peut pas toujours se vendre parce que le mensonge ne peut pas continuer tout le temps ay commérage mënul continuer tout le temps looloo tax mu bëgg jël revanche mhm. parce que loolu ma ko wax ba léegi répondre ci la deuxième raison mën na mentir pour bluffer cest à mën na mentir pour bluffer c'est-à-dire là di fexe pour que yéen ngeen dégg que daal di leen di woteel ñoom bàyyi Pastef. mais Pastef léegi instant bi pare na pour criminaliser comme ni mu ko daan waxee. mais c'est ça mu nekkee ci posi ci opposition bi. mais c'est ça loolu daf ko utiliser pour démentir la ma wax. Birame Khoudia bu nee moom bu nekkee député dina déposer projet de loi yow nga wax leneen ça veut dire que da nga bëgg dindi li mu wax pour nax askan bi. moom ci boppam ak ñàkk a publier nga xam ni tiitre bu bon rek la ñuy publier d'ailleurs j'ai décidé de ne plus y te dañ lay supplier bay bëgg dee yobal ay xale yu ndaw nga yërëm leen tonton ñëwal rek nga def et cetera après nga ñëw ñu def seen yëfu yooyu nga xam ni kenn xamul lan la je rappelle que émission boobu man ak Aliou Sow ak Coulibaly bu ñaaw bi ak Kële. Koulibaly bu. du du du Koulibaly sama grand la nag. Koulibaly bu ak keneen ki Diagne. ñoom ñoo ma seqoon j'étais le seul <laughs> qui défendait. Pastef. et puis je les ai à l'eau ñoom ñëpp Aliou Sow dafa mujj génn dem léegi nag ñu ne Birame Khoudia Lo quitte le plateau mais ils disent tout le contraire de ce que ce qui se passe et j'ai après et c'est pas la première fois qu'ils font ça donc loolu moo tax mu bëgg c'est la deuxième raison. mën na tromper ou de bonne foi je n'en suis pas sûr mais s'il se trompe de bonne foi ça veut dire que je comprends maintenant c'est pourquoi il peut pas diriger une entreprise normalement il n'a pas de modèle économique ça veut dire que il peut même pas diriger sa maison parce que maison pour nga diriger ko foog nga am bopp ñun dañuy yor ñetti soxna di doxal muy dem. mais dafa teg sa wax ba pare commenter. li mu teg du sama wax c'est faux ay wax ñun dagg la dañuy dafa teg sama wax. maanaam ci logique benn logique nga nekkoon di expliquer après ñu dagg. mu dagg parti dagg dagg fexe ba ñaawal ka si loolu laay wax. donc en tant que kilifa moom daa waroon déglu di déglu. dafa waroon déglu l'intégralité. pour mën a comprendre. pour mën a comprendre li ma wax mais moo ko tey. moo ko tey pour moom noonu la ñuy defee politique pour moom politique moom warul basé si vérité dafa war a basé sur mensonge. mën a nekk njuumte tamit. loolu laa la wax. Ah. njuumte mooy tromper de bonne foi. bu loolu amee mooy moom mënul yore kër. bopp te boo ko yorewul kër doo ko yore asmaa di yor réew. asmaa di yor entreprise loolu tax kay moo tax am mu am problème. koo na. ñëpp koy def. mais du lu kilifa lu ñu teel doo ni damm na da ngay xel la ko waral donc loolu ci raison yi la bokk. Mhm. wala mu am esprit rétrograde comme esprit rétrograde. nekk dans les vieilles habitudes nga xam ni véritablement yow pour yow na Ousmane Sonko doon defee politique ba siiw rek yow noonu nga bëgg jaar c'est-à-dire yaa gàtt xel mais tu n'es pas Ousmane Sonko Ousmane Sonko est un homme droit juste. mais mi si yoon bi de. dama ni Ousmane Sonko dama lay wax pourquoi nekkul ci yoon bi Ousmane Sonko est un homme juste droit kenn mënu ko corrompre nga xam ni loolu ñëpp seedeel nañ ko moom lañ ko seedeel kenn mënu ko corrompre. ci Macky Sall ak yooyu appel du pied ak yooyu ak ñàkk jom gu mat sëkk ñëpp xam ko bokkul les gens jugent les individus Ousmane Sonko est un homme correct Ousmane Sonko da nga koy tuumaal dara nga gis ni li nga ko tuumaal mujjul nekk dëgg ñëpp xam ko nga mujj nit ñi di ko baal mais loolu tax ñu topp ko boo bëggee ñu topp la da ngay jub moom mën na fexe ba ñu topp ko mais day jub il faut nga jub il faut nga dëggu ñàkk dëggu moo tax muy wax loo xam lu dëgg ci man. maa gën dëggu fuuf raison bi ci topp aussi mooy peut-être dafay dissimuler son état physique c'est-à-dire moom physique am boo ko gisee un jour ils ont montré des kii bugguma tiiñal ci affaire Bassirou Diomaye Diakhar Faye du jantal ca seen tele moom mi ngi seetaan ñëpp ngi seetaan bi ma bi ñu wàññee Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu sol tenue militaire ñu ni xoolal rek ni mu mel Aliou di ko tooñ alors technicien bi gaawantu daal di génne image yu Bougane Gueye Dany daal di koy solal tenue militaire Euh, ñu commencé di ree waaye ree ak a ñàkk yàgg ba ma waxee benn baat la ree ba arreté ma ni Ndeye Fatou Ndiaye mu ne ah ma ni ko ñaar ñi ku la ci gën niru yow sa physique ñu ni teg waxal teg ma sama image bi dama jëloo nga teg fii buggaan gën gi daane ñun ñaar ñëpp nga musóor ñu man dañ naan kii góor la mais moom lu ñuy wax donc dañu mbay nit ñi jàmm c'est-à-dire lu tax muy wax waxu góor jigéen toujours loolu moo koy ante c'est ça qui le hante diriyànke kan moo gën nekk diriyànke ñun buñ doxee nga xam ne góor wala xadd karam naa ba ni aadama léegi nga koy kii ci non c'est lui c'est lui qui m'a accusé c'est lui moo ma tooñ su ma neexee ma fayu mais bu ko fekk ci ci ci dinaa ko fekk ci terrain om dinaa ko fekk ci terrain om on se connaît on habite saint te waa Ndar dañ may sas bu ma demee naa attention sa waaye ñoom Bilal il les connaît ñoom Bilal du Kouré boo demee Gendar ñoom Bilal dem ba Diop Aminata Dieye boo demee sànc ba ñoom Bilal man ndar quartier bu nekk am naa fa nijaay wala ma am fa tante wala ma am fa rakk wala ma am fa mag quartier bu tous les quartiers donc man maa gën a dëkk ndar am na yoo xam ne moo leen on me dit pourquoi tu le laisses euh, te dépasser comme sax donc je réponds loolu tax ma répondre que il a particulièrement tort donc dernière raison bi mooy il a toujours tapé sur Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko daal amul impact mosut am impact. mais Ousmane mi ngi koy tontu. dina ko tontu mais du am impact impact bi mu mujj am mooy dañ ko tëj kaso te boobu Ousmane Sonko te je profite de l'occasion pour demander à Ousmane Sonko. te tëj kaso noonu tax na waa Tamba ñu ci bëri xam. kan c'est ça Ousmane c'est ça que j'ai dit dama si baa ngi ñëw dama ne Ousmane waaye waay bul tudd ngóor si c'est-à-dire Ousmane gémmiñ gi moo am barke. bu la tuddee pour critiquer sax da ci ab buzz gars yi loolu lañu xam buzz boobu la ñuy wut li ñuy wut mooy popularité parce que kenn du la dégg nga tooñ Ousmane Ousmane répondre la ñu dégg la Doudou Ka man dama xamoon kuy Doudou Ka mais man mosuma xam kuy Doudou Ka mais bi mu fi commencé di tàppas Ousmane laa xam kuy Doudou Ka c'est la même chose pour les autres personne ne s'occupe de ces gens-là tant que tooñ ñu Ousmane moo tax Ousmane bu doon sama sago waay waay bul tudd seen tur tuddal suñu tur ñun Abbas Fall tuddal tur El Malick Ndiaye tuddal ñeneen Fallou Keita comme ni nga ko defee démb sant ko waaye ñii même boo leen di sànni xeet tudd seen tur bërëb lañ ciy wut. d' accord alors si tu me mm-hmm. euh, tey jii ci euh, li nga xamante ni moo di élection yi ay fan rek moo si des pour ñu pour ñu jàll ci ngeen nekk ci dernier virage peut-être ci euh, campagne bi tey nan ngeen di contre contrecarrer problème yi nga xamante ni am na déjà loo xamante seq na sàmm sa kàddu wala Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko surtout ci violence bi jamono ji nan ngeen di def et que da jël lépp jébbal ko ministre de la justice ministre de de l'intérieur. il y a violence c'est des débuts de violence anani du dara dañuy jéem a dem di di sóob quoi ci terrain bi jël ay boy yoo xam ne vraiment ils ont laissé en rade nga xam ne amuñu dara ñu fay leen. wala mais du mujj fenn yéen waa Pastef bàyyi ngeen lépp.